laaj mooy ñu koy euh, euh, demande madame la ministre ak euh, le le kii DAPS bi donc ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq li jëm ci wàllu sport Sénégal ba ci inspecteur de sports yi régional bi ba ci départemental bi ñu nekk mooy que ne ñu xoolaat fédération bi seen doxalin. parce que mënuñu jël loo xamee ne lu ñëpp bokk la ñu dénk la ko nga ciy xool yaa ma neex wala yaa ànd man wala àndoog man nga ciy doxale lu leen neex di xañ ñenn ñi seen i àq te seen i àq dañu bëgg ñu daje ñu ñu revenu waat ñu woowaat ñëpp sur les tables ñu waat dossier yëpp ñu teg ko ci table yi parce que li ci du lool rek mooy problème bi même bu ñu demee ci problème financier seen règlement finan euh, kii bi bi ñu defar nga bilan rapport financier bi ñu def rapport financier bi nanguwuñ ko publier ci groupe bi dañuy tànn ay club di leen ko envoyé parce que bëgguñu ñëpp gis ko malheureusement jot nañ ci biñ ci jotee biñ ko saytoo gis nañ ne bëri na loo xam dañ ko war a rectifier parce que man su ma sukkandikoo ci li nga xamee ne données ñu yor ñun région de Diourbel rek c'est-à-dire bu ñu demee ci 2021 2020 donc li ñu déclaré ne moom moo jën moom lañ jënd ci ay licence donc da ngay gis ne 96 licences région de Diourbel moo ko jënd 13 licences moo ci des yoo xam dañ ne kon région de Diourbel treize licences moo ci des treize licences yooyu yëpp da nga naan kon Sénégal yeneen régions yi ci des yëpp treize licences seen diggante te loolu xel nangu ko donc même bu ñu demee ci bordereau yi versement yi nga gis ne 2020 euh, boobu nga xam ne dañ ne ñu baree bari euh, affilié wuñ région de Diourbel moment boobu moment Covid bi affilié na ne 17 clubs yoo xam ne daf ko affilié te lépp li ñu wax lu nekk rek dañ koy mën a prouver fii parce que euh, document yi mi ngi fi lépp mi ngi fi lu ñu wax rek document bi mi ngi fi amul leen loo xam ne dañ wala ñu koy wax ci suñu teyu bakkan lu ñu wax rek mën nañ ko justifier euh, ci biir loolu même euh, li nga xamante ne mooy lu dugg ci keesu compte bi ak li ñu fi fekk ci lu ñu xam ak li ñu génneel ci rapport yi yooyu tellement neexutu wax dafa doy waar parce que bu ñu demee ci rab deux mille deux mille vingt et un bi deux mille vingt et un bi dañ fay fekk. ñu ne def nañ ay ay lu toll ci ay cent million 145 mille te subvention yi ñu def nga xamee ne ñun dañ ko fekkee ñu ñu kii ko mi ngi toll ci montant bi mi ngi toll ci 550 mille yoo xamante ne moom lañ génnee séddalee ko ligue yi nekk ci Sénégal yëpp 550 mille yi ni ñu ko partagé mooy ligue de Diourbel comme ne mooy ligue bi gën a mag moom ak ligue de Dakar ñu jox ligue de Diourbel 100 mille jox ligue de Dakar 100 mille muy ñu jox Ligue de Saint-Louis cent soixante quinze mille euh, soixante quinze jox Ligue de Thiès soixante quinze muy euh, cent cinquante mille mu nekk trois cent cinquante mille ñu jox mu des yeneen quatre ligues parce que huit ligues moo fi nekkoon quatre ligues yi mi ngi nekk Sédhiou Kaolack euh, Louga ak Tamba donc ligue bu nekk ñu jox ko cinquante mille mu nekk deux cent mille lépp lépp nekk cinq cent ñoom bi ñu demee ci ci ci ci bilan financier bi dañoo def ne un million cent quarante cinq mille séddale nañ ko. te ci moment boobu euh, ministère de sports ku ne xam ne ne Covid bi dafa defoon ay subvention pour jàppalee ko ñi nga xam ne ni ñëpp ñi ngi doon yëngu ci wàllu sport te kii ñu jëloon benn somme bu montant bu 5 millions joxoon bu ñu jox ko 5 millions fédération ñu joxoon ñu 5 millions 5 millions boobu ci lañ jël 450 000 ñu séddalee ko. alors la des ci xaalis ba léegi waxuñu fan la jaar ak nañ koy dugalee te wala ki ñu ngi def ci seen rapport yi séddale nañ ci 1 million 145 mille waaw yooyu yëpp bëgg nañ mu leer ak matériel yi nga xam ne. Chine daf ko mayoon fédération sénégalaise de kung fu muy matériel yoo xam ne ci ñaari interview yoo xam ne président bi def na ko benn bi dégg nañ 11 million matériel bi benn bi ci des dégg nañ 15 euh, euh, millions ci benn euh, benn benn journal bi nga xam ne moom moo fa defoon interview matériel boobu dafa amoon ay daws am ay nandaawo am jeans am baton am lance am ay kémino am na ñetti forme kémino benn carton bu ci nekk rek minimum def na bu dee armes yi def na cinquante bu dee kéminaux yi xaw ma effectif bi nu mu toll parce que président ñëw nañ ba ci bureau bi mu wan ma ko ba ma gis kii mais xaw ma montant bi te aussi ba léegi kenn waxul ne temps la matériel boobu euh, benn daws lañ ci jox Ligue de Diourbel ak benn Jens yeneen ville ligi ci des yëpp noonu lañ leen ko joxe donc matériel bi ci des naka lañ ko séddalee naka lañ ko partagé fan la nekk dañ ko bëgg a xam parce que boo demee ba sa mandat jeex nga war a dem li nga fi fekkoon war nga ko présenter lépp ne lii laa fi fekkoon lii ak lii laa fi bàyyi parce que ñoom bi ñu fiy ñëw fekkoon nañ fi ay sac de sport fekkoon nañ fi ñaari tapis fekkoon nañ fi aussi ay daaw si yooyu moo ak ay jeans fekk nañ fi aussi même benn oto boo xam ne donte oto bi te oto bi def nañ ci bilan kii bi ne dépendé nañ ko un million neuf cent et quelque yoo xam ne moom lañ dépendé euh, oto bi donc ñu indi ñu tam ay chiffres yoo xamante ne euh, deux mille mille vingt quatre normalement affiliation warul am bu fekkee li ñu wax noonu la demee parce que ñi nga xamante ne le 2 janvier ñii taxaw fii ci metre yi am na ci nga xam maa ngi seen ay fiches de versement bi ñu dugalee seen fiche de versement dañ leen baare nañ kenn waratul verser ba pare ñoom seen rapport ñu génnee ci rapport bi ne année boobu 2004 boobu 2 millions et quelques affiliés léegi 2024 bi 2 millions et quelque yoo xam ne euh, xaalis boo xam ne affiliation la plus ak li li ñëwagul ci ay licences ak yooyu léegi loolu naka la mën a demee soxla nañ ci ay leeral. man Moustapha Ndong directeur technique ligue régionale de Diourbel waaw li ma ci doon sànni mooy injustice bi nga xamante ne bi ñun ngi koy dund ak fédération sénégalaise de kung fu wushu comme comme ci côté bureau ligue régionale de Diourbel comme côté technique bi tamit dañ koy dund ndax bëri na ay bagages yu fi xew yu bëri yoo xamante ne bii ci ligue régionale de Diourbel ak fédération mooy côté direction technique bi quoi man foofu laay waxee parce que foofu laa féete mooy euh, comme direction technique bi cest ñun fa lañ bokk man ak sama adjoint pendant deux ans génne nañu ci bureau direction technique bi ak ci groupe whatsapp yi amatuñ benn message boo xamante ne bii buy jógee fédération la di ñëw ci ligue nationale de Diourbel ñu mën ko jaarale ci région bi muy comme passage de grade comme stage arbitral comme stage technique bépp manifestation boo xamante ne bii fédération sénégalaise de fu instant bi mi ngi koy liggéey ci ñaari at yi ñun dañ koy dégg comme ni ko ñeneen ñuy déggee mais amuñ benn benn nouvelle xamante ne bii buy jógee ci côté direction technique